ɓeɗo jiinilam aleykum wa ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm c'est le duo tey du dimanche Ablaye tey moom moo ñëw sëy naa léegi bokkatul le nouveau marié est aatuma ah, réeroon feeñ na mi ngi nii moom ah. moom 9h lay tëdd léegi nag tey jëy production moo ñu fi woo diggante kan Jackson ak Naaru Sogas l'ancien face à la jeunesse à la nouvelle génération boo xam day aspirer dem ci kaw kon ñaari mbër yoo xamante ni bokkuñu ay chemin ñoom ñaar moom la jëy production tëgg gis nañ fi tey Liss Ndiago gis nañ fi Tapha Mbeur combat boobu daa mel ni taxaw na dañuy waxtaan ak ñaari mbëri mais Ablaye aatuma réeroon feeñ na léegi nañ jël ambiance dem ci interview yi ak ci làmb ji ci géewu Sénégal la Jackson mbër mu la koy kii ñu ngi jëm ci combat bu am solo yaa xam bawol moo ñu wan kanam di ndroog sos soo soosaat ñeex ñeexaat cur car car cararar xaw ma Ibou moo ñu wan ginnaaw di ndroog Tyson ñaari mbër yi ku ci nekk dafa am kum may jox yaa bawol moom la ñu jàkkaar lool mooy ndroog sos di ma jox style sos jëmm sos bopp sos tànk sos gàttaayu sos Ibou Socé moo may ndroog Tyson sa tànk boobu nag nga jiital nag booy soose daa xam nag looy def xaw ma da ngay sexal xaw ma ñu ngi leew too ñoom ñaar Ibou Socé yor physique bu macha allah en physique athlétique attention dóor mu daanu këpp ñoom ñaar xeex nañu xam Yakham Baol jàpp na ko Yakham Baol moo tardé loon combat bi waaye fi mu nekk nii xaarul dara mi ngi door ay uppercut Ibou Socé moo féete ci ginnaaw Socé Socé Socé Socé Socé mbokk Lac de Guiers numéro 2 Boy Socé rasu na ndeysaan physique bu athlétique la indi tey forme jàpp na ngemb ci biir rasu moo gën a njool pour yaa xam jàpp da ngemb day metti mais ndeyjoor bi jàpp na mi ngi door ak goos ñoom ñaar ñu xeex ñoom ñaar ku ci daan am nga yoon ci làmb ndax te jëmm ji joxe na jëmm mbër Ibou Socé jàpp na gauche ci ginnaaw ngemb yaa xam bawol nuroog Zos attention Mbodj la doon tante yaa xam téye na loxo ndeyjoor bi gàtt saf la gàtt dis gann saf sap pour que pour nga manœuvrer ko dina jafe waaye njool mi tamit di sànni tànk yi ci ginnaaw di rasu pour nga manœuvrer ko dina métti. épreuve de naxante épreuve physique ak naxante attention Ibou Socé siggi na mi ngi ŋang maa ngi gis protège bi ay ska dóor a wéyale yaa xam na wéyale ñu ngi bëre nag ñoom ñaar ñu ngi bëre épreuve physique épreuve de force waaw boo wéyalee da ngay def action bi da ngay ànd ak moom mais sànni rek xandal rek taxaw xandal bi du sori ki yàggee yàggul foowee xandal moom jamonoy xandal jamonoy xandal di daggante ku nekk di jéem a dagg sa morom ñi koy xeex xandal bi naan gërr gërr nga naan sama bos moo gën a baax moo gën a ñaw yaa bawol fooyewul xandal attention yaa xam mi ngi dóor Ibou Socé dóoroon na Ibou Socé ŋaang na moo féete nday joor moo gën a njool attention Ibou soose ñam na man ne dooleem ji ma gis ku mu dóor fu mu dóor day teppeeku mbaa mu xar jàppante nañu loxo ñoom ñaar attention yaa xam bawol mi ngi dóor sëgg na ndengeñ na ko bu Socé Socé baa ngi dóor rek soose bi rasu na yaa xam bawol am nga problème bu Socé am na doole njool na mën na bëre jàpp na ci ginnaaw téere yaa ngi lang galaaj yaa ngi lang muy buum di morso tegante nañu bopp ñoom ñaar ku nekk dafa nengeñ sa morom maanaam teg bopp ci épaule tere sa morom mu liggéey nga koy contrer ak sa bopp yaa xam bawol am na lu muy tànte yaa xam jàpp na loxo ibu Socé wala Ibou Socé jàpp loxo ibu Socé jàpp loxo yaa xam est-ce tël tànk bi ngemb bi tekkeeku na ci ginnaaw ngem bi tekkeeku na ba nekk geen ci ginnaaw geen la <laughs> attention tek tekkum biir la Ibou Socé tante woon kii nga tànn la boo koy def bu ko yërëm dong koy taf dugal sa tànk crochet ko ba mu yaa xam bawol tante na mi ngi dóor def ko bëgg a xar ma ngay dóor ci bopp bi Ibou Socé door na uppercut élastique bi laxasu na ci loxo bi Ibou Socé gi dóor si gi nañ ñu ngay ñamante awaay awaay nuroo waale jos baa ngay ñam waay wee pëp ngemb li tas na def geen ci suuf comme geenu jasit Ibou Socé moo ñu wan ginnaaw Boy Socé moo wan ginnaaw Dieye Production moo tëgg làmb ji ak staff yëpp Dieye Production ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax combat yi neex na koo xam ne day tëgg làmb seen wu ci dara pour jàppale la jeunesse pour jàppale les jeunes lutteurs attention attention xar xar ba xar ko waaye tekk na ko mais demul da ko effacé da ngay dóor dóor na yaa xam mi ngi dóor Ibou Socé fayu na uppercut uppercut dóor mu rodde mën na cee am gars yi kontaan nañu ne kenn mësu gis lii ay nit di xeex nit ñi kontaan eh eh mandi na eh mandi na il titube élite dib ñi ngay doorante arbitre àtte na yëpp a bëre Ibou Socé am na benn mbay a astafurla Yakham Bawol am na deuxième Yakham <laughs> maa ngi jégalu de Yakham Mbaye Yakham Mbaye nañ ko bàyyi soleil rek ak ci politique bi Ibou Socé léegi nag day songu dana songu de waaw waaw lu leer ah ñam na ko ay waa Yakham Bawol ñam na ko Ibou Socé mer na mer bi baa baax na jàppante nga jàppante bi nga doon bañ xeex bi moom nga doon privilégié Ibou Socé Yakham Bawol ñu ngi de ay cours ci suuf maanaam ay uppercut jàpp na ñu ña ngay rokkos rokkosante bàccu ñi ngay bàccante attention Ibou jàpp na loxo ndeyjoor mais booy xool Yakham pour mu jàpp ci ngéem day jafe parce que waa ci njoolante jàng na rasu rasu ci làmb la bokk gis ngeen si làmb la bokk de da ngay tere sa adversaire jàpp pour liggéey yow rek yaa jàpp moo tax gis nga yaa xam ci kaw la jàpp yaa xam bawol paa yaa xam bu APR paa yaa xam bu politique bi paa yaa xam bu njiitu la soleil waaye kii mbër la yaa xam boobu xamul lii mënul lii nañ koy invité si plateau yi muy wax rek waaw le combat des plateaux bàyyi bàyyi bàyyi beneen yaa xam bi rek mu bëre yaaxam boobu noonu moom moo gàtt Drogzos de gauche ku nekk daan ndengeñ sa morom uppercut bu sew la yaa xam maye Ibou Socé sigi na da ngay ubbil arbitre arbitre sëgal gisatuma arbitre gisatuma sa bopp bi laay gis arbitre ñi ngay ñamante ci kaw waaye ñi ñoom dañuy xeex wala dañuy bëre mane ne loolu laa bëgg a xam di xeex rek te duñ bëre lii mooy lan am ngeen doole mën ngeen ko yor ngeen jëmu mbër xeex ngeen ñëpp xam nañ ne mën ngeen xeex léegi nag bëre waaye di dóor ci bopp rek ah arbitre day jël combat bi de baax na attention tekk na ko waaye pap pap pap daf ko tekkoon mais Ibou Socé comprendre na ko jàpp na ci ngemb bi ngemb bi dafa tas ba nduroog geenu jasit Ibou Socé jàpp ci ngemb bu tas bi yaa xam am nga problème Ibou Socé fi mu jàpp nii fi mu jàpp baaxul de may nga ko fu mu jafandu jafandul tegal fii sa loxo Ibou Socé ñaari loxo yi jàpp nañu yaa xam loxo ndeyjoor bi gis ngeen ni mu cëqee roof na ko ci biir ngemb li Ibou Socé lu tax nga may ko loolu ma ngay dóor daa bëgg mu siggi Ibou Socé day dóor mais du ma gis mu def benn action man looloo ma jaaxal est-ce que gars yi fàttewuñu jàngal ko bëre muy dóor rek ku nekk jàpp na dañuy jàppante di bumaxante tegante bopp di dóorante léegi nag bëre bi moom moo dëgg dëgg dëgg bëre bi moo ku nekk am nga ngemb Ibou Socé fa mu jàpp jàpp na ko muy ngemb lu tas la waa ngemb bi moom mooy kii bi rek ah xam nga mooy loolu quoi eh yaa xam lu da nga def doo dootoo ko amati barki yàlla sa loxo ndeyjoor boobu nga génne dootoo ko amati wala Ibou Socé may la ko ña ngay dóor Ibou Socé jàpp na ngemb ci ginnaaw yaa roofaat na ko. yaa roofaan na ko Ibou Socé mi ngi ko yaa xam mi ngi ko bëgg a dël di dóor rek ay eh waay waay Ibou Socé dee ngaa bëre Ibou Socé mbaa doo am la naqari Ibou Socé mbaa doo am la naqari ña ngay jàppante bi di bu ma xante tëlaat na ko yaa tël na ñaari yoon xaw ma ñetti yoon tël talaat tëlaat taat taat taat ba muy yoon waaw sama père ñoo ko bàyyi nee na yàgg na yàgg na moom xeex ngeen waaye bëre bee des yaa xam kor na ko ak loxo gauche mais loxo ndeyjoor bi mu war a dóor dafa jàpp dugal ci ngemb wóorul mu dindi ko arbitre àtte na avertissement beneen eh Ibou Socé am na ndam ci kaw Yaxam ci lan nombre d'avertissement ci avertissement waa baax na kon jaa ngeen jëf kenn du yéen. naaw Petit Ba moo ñu wan kanam Petit Ba ak Mbacke Faye Mbacke Faye soo paree na nga changé sa turu mbër bi Petit Ba sama doom baay attention Mbacke Faye woo pëp pëp la ma doon yaakaar damay ragal mu am ay waay Mbacke Faye jël na ko. Mbacke Faye da koy jël da koy daan da daan da daan da koy daan wër na ko ndomba ay waaye sama doom baay daan nañ ko lu ma la waxoon doole doole doole am na combat yoo xam ni damay jàpp ne sax du combat wër na yàlla Mbacke Faye daan na xalem muy booy bar ñi moo ñu wan kanam bébé colère moo ñu wan ginnaaw waaw bébé koleer lan mooy bébé colère wala moom day mer rek bi mu nekkee bébé dafay ne dafay nekk en koleer waaye Bargny moo ñu wan kanam bébé colère moo ñu wan ginnaaw bébé colère moo ngeen moo ngeen bu rouge verte ak noir waaye Bargny moo ñu wan kanam. Leewtoo ku nekk pied gauche nga jiital ña ngay Leewtoo ñoom ñaar attention booy Bargny sànni na benn gauche jiital pied gauche mais loolu ànduma ci de. ànduma ci ànduma ci ànduma ci ànduma ci Boy Bargny na nga xeexee noonu ànduma ci Boy Bargny Bébé Colère Bébé Colère dem na soobu na jàpp na ko dafa bëggoon génn jàpp ko plaqué nañ ko daan nañ ko daan nañ la sa songu baaxul sa bëri daanul Boy Bargny daan na ko daf ko plaqué tëral ko mu ne ngalañ bëre nga de bëre nga moom ñu ngi ci cumikaayu naaru sogaas gis nga mi ngi noonu mi ngi takk ngembam pour dem ci biir géew bi boo xoolee moo ko jiitu ci làmb boo xoolee nee na moom day bàyyi ba bëree ba pare door a tuus loolu la wax loolu de gëj naa koo gis naaru sogaas sol na beneen yére ma nga noonu la champion de xam sa cosaan ma ngay noonu sol na benn yére ma ngay waaj dem ci géew bi ma nga noonu l'ancien est là xaw ma fan la teg ne damay bëre ba pare dooru tuus waaw gis nga ko noonu ak form bi jàngat leen ko bu baax a baax a baax décortiquer leen dama leen bàyyi ak Ablaye en ngeen décortiquer ko non non non non non non que ne il a maigri je vois que ne il a maigri waaw. dem na ci géew bi booy xool yóbbuwul ay cummikaay yu bëri booy xool yóbbuwul cummikaay yu bëri yóbbuwul ay budeel yu bëri kaay eh xoola Jackson kii ban la sangoo wala lan la sangoo wala peinture eh Jackson li muy def ni jàkkaarloo naa adversaire am naaru sogaar bu ko takkal wala soow la soow piir walla meew wala peinture peinture bu jaune naaru Sogas a ngi noonu qui dégage la sérénité l'ancienneté regardez les supporters de Jackson Jackson a ngi noonu di wax ak ay supporters am Jackson ba naagu woo kii màggatub jine la sangoon na benn butéel joxaat nañ ko beneen butéel man li ma jaaxal naaru sogaas li mu andi forme bi bu andi moo ma jaaxal naaru Sogas ëppoon na nii Daaru Sogas toll nii yàgg na ci géew bi yàgg na ci làmb ji naaru Sagaar booy xool ñett butéel la sangoo xaw ma quatre butéel ma nga seex benn fas bu arbitre ne prip lan mooy am naaru Sagaar lan la indi tey waa loolu den ko xool waa kii ba tey génnagul. mbokk yi ñu ngi jëm ci le grand combat de la soirée drapeau Mame Diarra Fam Guèye production moo ko dëgg ànd ceeg euh, son staff sabi buñ ko waxee den tudd Abdoulaye Ndiaye. mbokk yi booy xool li nga xam moom mooy forme physique bu Naaru Sogas jaaxal na ñu bëri tey ci làmb ji mais nag je vous donne l'info moom Naaru Sogas démb lay door a accepter combat bi parce que dafa defe ne woon combat bi dootul amati ba dafa doon réclamer maanaam da doon sàkku pour ñu yokkal ko musique yi jëy production loolu la def moo tax combat bi préparé wu ko sérieusement ah d'après mes informations nag liñ ma wax Jackson moo ñu wan ginnaaw Naaru Sogas moo ñu wan kanam l'expérience face à la jeunesse mais Jackson bu mu yóbbaale fukk de jeunesse am Narou Sogas booy xool tey àndul ak waa écurie xam sa cosaan ñeneen laa gis ñu àndal te andiwul forme andiwul forme mi ngi arrière c'est l'expérience c'est l'expérience expérience day bëre attention au coup fatal attention au coup fatal Jackson bul naagu ndaanaan ngay bëreel nag donte il n'a pas bien préparé ce combat donte préparé wul combat bu la fukk jeunesse yóbbaale dal moo lay mën a génne ci combat bi xel moo la ciy mën a génne Jackson moo ñu wan ginnaaw attention au coup de Naaru Sogas attention ay dóoru Naaru Sogas nag loolu rek laa mën a wax parce que avec précision lay dóor moom buy dóor day xool ta mag buy bëri la ah, combat bi boo xoolee da nga naan lii du combat. combat bi boo xoolee da daan lii du combat dégg nañu les analyses de Max Mbargane Saliou Ba manager Ibou Kane sunu làmb Fatim da baax Dakar Actu Naaru Sogas Jackson mi ngi dox ci kawam Naaru Sogas tey tuusul dafa ne day bëre ba pare ta loolu làmb dàq na ko jàpp na ko daan na ko jàpp na ko rëpp na. attention aux erreurs de Jackson erreur jeunesse Jackson mi ngi dóor Jackson mi ngi door wéyale na ko Naaru Sagaas mi ngi jéem Jackson tagal na ko daan na ko daan na ko daan na ko c'est normal c'était prévisible jàmbaar la mais daanu na jàmbaar la mais daanu na il n'a pas préparé ce combat démb lay door a accepter combat bi dañ ko yokkal xaalis mu jël combat bi waaju ko. waaju ko bëree waaj la jàmbaar la jàmbaar eh, mawɗo jiinilam abiɗe rapinda sofe idu bin harite